à euh, 8h05 ce matin bi juróom ñetti waxtu ci suba jotee ba toftal juróomi simili ci la secours bu groupement d'incendie du secours numéro 1 14e compagnie maanaam centre de secours bu Diamniadio ci lañu jot ab xibaar di xamle ni ab l'accident moo am ci kaw tali bi bi ñu yegsee nag dañoo gis ni benn oto ndox moo daal di mbëkkanti ak benn bus bu yeboon ay doomi aadama muy nag ab jëye ji nga xamante ne bi def na lu toll ci juróom benn fukk ak ñaar ci ñi ci loru bu ñu ko xaymawee nag am na lu toll ci juróom ñett ñoo xamante ne bi dañoo gaañu gaañu yu méttee métti juróom fukki nit ak benn yi nag daanaka ñoom seen gaañu gaañu taxu koo demee noonu wante nemmeeku nañ ci ñett nit yu si ñàkk seen bakkan ñi nga xamante ne bi nag seen gaañu gaañu dafa doy waar lool dañ leen rawale ca bu fajukaay ya nekkee ci biir ndakaaru ñi nga xamante ne bi nag ñoo ci ñàkk seen bakkan naam gis nañu ne dañoo naqare woon a génne ci la ñu def nag ay pexe ba génnee leen yàpp leen ci ay ambulance yi faral di yàpp nii wi ngir yóbbu leen ca l'hôpital Dantec ñi nga xamante ne bi nag dañ cee jëlee ay gaañu gaañu yu xaw a yemaamaay dañoo gis ni bëri nañ ci lañ leen yàpp ñoom itam ci ay véhicule civil yóbbu yeneen bërëbu fajukaay yi. Euh, nous permettre de les évacuer le plus rapidement possible donc vers les structures sanitaires.